jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal depuis une semaine yéenay gis li nga xamante ni moom moo xew fii ci Ceeskaay digganteem ak entrée Ndiassane bi ñu naan ko Mbodiène xale bu góor wala toll ci ñaar fukki at ñu faat ko ba pare taal ko coow li nag jug na boobu ba léegi am na ñoo xamante ni jot nañoo identifier koor gi ba dëjal nañu ko ñu toog ak ki nga xamante ni moom mooy magam frère ki nga xamante moom la ñu faat ñu toog war a fas yéene waxtaan ak moom. ci mbir mi naka lañu ko yëgee ak naka la demee ñu ma saw ko déjà avant tout ba pare bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi koy seetaan masaw nañ la grand bi ba pare ñu ngi lay bàyyi nga nuyu mbokki internet Allô Sénégal waa bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sante yàlla ba jullit ci yonent bi dañuy wax alhamdulilah alhamdulilah man maa ngi tudd Mohamed Dime maa ngi nekk mag ci Moustapha Dima ñoo xamante ni moom la euh, nattu bi wàcc ko am waaw maa ngi leen sant bu baax di leen di di rafetlu seen teewaay di leen euh, dégloo si tamit ci lan ngeen bëgg a xam comme waaw question yoo leen may posé moom mën cee répondre mm-hmm. incha allah Mouhamed ñu masa war la ci mm-hmm. turu sénégalais yëpp waat la itam ci turu Allô Sénégal ci li nga xamante ni wàcc na ci seen kaw mbir mi naka la wàccee seen kaw naka ngeen yëgee information bi ndaxte toog nañ ay jour doog a identifier ki nga xamante ni moom mooy Mouhamed ndax ni ñu ko faatee moo mel noonu déjà bi ngeen ko gisatul naka moo demoon seen réaction bon comme comme comme euh, bépp grand frère man le jour bu muy bu muy dafa am sama ñaari rakk yi nga xamante ni amaana ñoom dëkkuñu ci kër gi fii nii mooy maison familiale bi sama kër euh, maam léegi ñoom dañoo ñëwoon fii yendu fi walla ci ngoon gi ay après timis yooyu ma yóbbu leen pour ñu dem ci kër paa ci par bi ma demee foofu ñu ne ma moo ngi noonu di génn Euh, malheureusement jotu gaa jotumaa gisanteeg moom ci jour boobu ba ci le lendemain lundi paa bi daat may woo ne ma Moustapha de ba léegi ñëwagul ma ne ko ah bon loolu moo comment ça se fait que ni depuis démb ba léegi. boobu ban jour la. c'était le lundi. lundi moom dimanche la. génn le lundi amuñu ay nouvelles ci moom. paa bi daal moo koy wax ma ne ko loolu moom comment se fait-il démb ba tey gisoo leen quoi. Mm-hmm. amoo leen ci moom benn nouvelle mu ne ko est-ce que yéen a ngi déggante mu ne ma premièrement doon na ko woo ba mu ko doon wax ne ko actuellement moo ngi xaw ma kër fee kër njaay loo mm-hmm. kër Ndiaye Lo. waaw bon vu que ni man xam naa secteur kër Ndiaye Lo parce que maa ngi jëm ñaajo mm-hmm. ma ne kër Ndiaye Lo ci àll boobu nga xamante ni. kenn xamul nu mu demee noonu booba léegi amoo leen ci moom benn nouvelle ci sama première réaction rek boo ma ne booy bi kon sànku na après ñoom mu ne ma non xam naa justement dafay laaxatu parce que am na benn phénomène bu xew ces temps secteur bi mooy xale yi dañuy jël gaal gi di dem ci ci Espagne parce que y a plusieurs jeunes yu nekk ci secteur bi nii actuellement koo ci gis boo ko laajtee ñu ne mu ngi Espagne bon bi mu waxee ne peut-être est-ce que nekkul bokkul ci booy nga xam dañoo làkkatu dem ci gaal gi. amaana bon ñu jéem a dalal suñu xel rek mais ama après je me suis dit ni bon peut-être mën na nekk loolu ñu toog le mardi mercredi jeudi euh, toujours pas de nouvelle bon jeudi bi maa ngi woon euh, maa ngi woon ci stade bi par la suite euh, bi ma jógee stade jaar Dakar Arena ay. deux heures du matin sama papa woo ma mhm. di ma laaj ne ma euh, numéro police wala euh, asafla numéro sapeur pompier bi 18 mhm. la wala 17 exactement xaw ma ban ban chiffre la ci mais ma ne ko tenteel benn rek après bu dul boobu dina la orienté waaw pour ñu wax la numéro sapor bi nga soxla ma ne ko nu mu demee noonu mu ne ma dafa dégg ay information disant que ni y un jeune mhm. bu yoroon Jakarta bu gaayu rey daal di koy taal fee ne ci côté Njaasaan ma ne ko ah après man sama xel nekkul ci loolu ah hmm. sama xel nekkul ci lool ma dalal sama xel ma ne ko waaw wooteel ci ñoom ñooñu après peut-être ñoom lu ci mënti am dinañ la wax hmm. bi ma xëyee le matin ay 10 heures yooyu tombeek ma nekk ci niveau pont wu Diamniadio bi hmm. doon ñëw Thiès paa bi daal may woo ni ma malheureusement information bi doon circuler dans le net c'est vrai que ni Tapha la ab instant yooyu nag euh, moo waaw mu affaire bi choqué ma vraiment mm-hmm. mu nekk nouvelle bu dis waaw après ma dëgërlu ma ni ko actuellement yéen a ngi far mu ne ma ñoo ngi police bu Tivaouane ma ni ko baax na incha allah maa ngi fay ñëw mm-hmm. après nii la amee nouvelle bi mu daanu suñu kaw mu nekk lu metti loo xamante ni vraiment mm-hmm. ñee yéenewuñ ko kenn ah. vraiment yow boo ko déggee koo xamante ni nekku sa mbokk sax nekk na lu diis laa bu dee koo xamante ni sa deret la mu nekk lu metti ñu koy metti lu bu baax vraiment yow en tant que grand frère am bi nga yëgee ni moom mooy ki nga xamante moom la ñu faat depuis quelque jours ngeen ko doon wër tegoo leen ko bët ngeen doon yë aussi am nañu ko ñu faat ba taal ko ñu def rapport bi ngeen xam ni seen sa frère la ñu taal moment boobu lan nga yëg bon lu lu lu lu lu lu lu metti ah lu lu doy waar parce que xam nga rek dafa dafa dafa dafa xaw a yéeme koo xamante ni amaana da nga ko doon gis nii muy def ses activités sa kanam. nga koy yónni wala ngay waxtaan ak moom. Mm-hmm. ngeen am benn genre échange bu doon am seen diggante. Mm-hmm. nga jékki-jékki dégg ay information yu demee noonu. ba tey doo ko gëm mais keroog bi ñuy wanee des images yi nga xamante ni noonu la drame bi demee après tu di dis que ni bon c'est c'est choquant mais sant yàlla quoi parce que amaana jaam bi moom lépp loo xamante ni tegu ko boppam rek ki ko ko teg mooy ki ko saña a teg mooy suñu borom. dëgg ñu ne dañ koy sante yàlla ak lu mu metti metti mënuñu ci dara bu ñu bëggee noppalu faaw ñu santee ko suñu borom waaw. loolu moo ñuy noppal. waaw gën a mën mbir mi mën a woyof ci ñun. mais yan relation ngeen amoon yéen ñaar. Moustapha Moustapha bon amaana xam nga man maa nekk benn genre grand frère boo xamante peut-être dañuy wax ay ay ay ay ay genre pas allemand. Mm-hmm. mais man je peux dire ne booy mm-hmm. eh, amoon nañ benn benn kii benn ruus bu ñu amoon ci man quoi. parce que saa su ne. damay wax ci ñoom dëgg laay wax ak ñoom te aussi tamit nekk na ñoo xamante ni vraiment saa su ne su ma leen waxee rek dañuy exécuter te su may wax ak kenn ku may wax ak ci ñoom kenn du ci yëkkati euh, bëtam xool ma ñoom dañuy sëgg su may wax ak ñoom mm-hmm. surtout mu Moustapha moom ndeysaan dama koy dama koy soit débat dama ko doon tooñ sax naa ko yow mm-hmm. lekk rek nga bëgg affaire yooyu noonu parce que tellement que ni moom sama sama sama waay la woon mooy loolu laa ko doon ëpp lu ma ko doon xasee man ne ko yow leen mënoo xamoo leen leen ci àdduna mënoo ko lu dul lekk rek nga mën. affaire mais macha allah. Mm-hmm. mu nekk jàmbaar joo xamante ni man seen grand frère mosuma xam seen problème. parce que booy ak malgré que li muy nekk xale yëpp. waaw ñëw ne ma amet may ma nangam wala affaire yooyu noonu man maay jékki-jékki am loo xamante ni gis naa ni normalement en tant que seen ma ma yëgati ko teg ko seen loxo du ma ko teg sax seen loxo sam papa laa koy teg si loxoom ma ne ko joxal ma booy lii mais mu suñu maa diis seen benn problème pour te dire que booy yi dignité bi ñu doon demee mhm. booy bu ñu soxla woon fukki dërëm mhm. man seen grand frère du ko yëg mhm. te te te ci loolu noonu moo taxoon sax ñu dem ba nga xamante ni à moom ci jàng la tolloon waaw mais juste pour jéem a ñafeel boppam ils se sont dit que ni toog di dem ay école ñu ñuy fayal ak affaire yooyu peut-être mën na nekk benn charge ci paa bi. waaw ñu jéem xool di ñafe di ñafe di xosu ci seen côté ba lépp loo xamante ni am nañ ko rek di ci góorlu ba kenn xamul lu leen seen benn soxla. ndeysaan te loolu vraiment muy nekk loo xamante ni wane ne xale bi malgré que xale la mais. Mhm. benn côté ñoo ngi doon góorgóorlu ci ci seen côté ba nga xamante ni. lépp loo xamante ni soxla la si yu demee ci ñoom ñu jëm ko fayal seen bopp. tey mun naa ni moom ak ay xaritam peut-être même génération la ak yow euh, est-ce que mën nga ñoo wax ay xaritam ni nga naka nañu def ba euh, jot mbir mi maanaam dañ ni dafa am ñoo xamante ne ñu ko xam na ñum doon yóbbu am na ay fréquentation foofu noonu fi nga xamante parce que Thiès ak Mbodiène xaw na sori. ñu dem ba retrouver ko foofu naka la def ba atterrir foofu foofu lañ koy yóbbu wala dafa am ñu fa jàppanteel mhm. xamoo euh, ci côté fréquentation bon jusque d'après les informations yi ñu am benn ci xaritam yi dafa doon tudd doomam le dimanche après dans la journée le gars bi nga xamante ne amaana euh, ses amis mën nañ ko considérer comme un suspect après daal di koy woo pour après ñu ànd am fu ñu ànd d'après ces ñoom loolu lañ ci am comme information mais le jour bi nga xamante ni amaana moo ngi doon disparaître paa bi ci lim ma jot a expliqué da koo wax ne Tapha da ko ne damay recevoir benn appel ci kanam bu ki may woo bu wootee nee ko mu na ma xaar parce que actuellement agent yooyu da doon sangu mu ne paa bi pour que bu jotee appel bi na ko wax ne kooku na ko xaar par la suite xam naa bi mu sangoo ba pare ci la appel bi di doog a ñëw mu wax ko en personne ki mu doon waxal après ci ni muy génnee kër gi ba ni muy demee ba ni ñuy jotee nouvelle bi loolu la ñu am ab déjà nag gars yi ak ses amis ils se sont que ni peut-être comme que c'est la dernière personne bi nga xamante ni amaana moom la ñu am njortu ko ni moom la mujjee giseel peut-être set euh, personne moo war a nekk ki nga xam moo ci gën a mën a xam dara mm-hmm. waaw xam naa ci lool daal lañ ci jëlee comme comme information. ban jour ngeen mujjee gisante ak yan kàddu ngeen mujjee waxtaan yow ak moom. bon maa ngi Moustapha nag bon euh, si je ne pas ci avant ci avant Korité bi je ne me pas parce que bon comme ni ñu koy wax man déjà damay def navette Thiès jëm ñaayo su ma fi euh, de matin à l'aube balaa ma fee duggaat. tey xaw a guddi te déjà sama gisante ak moom du bari euh, mais je me dis ne ba ñuy mujjee gisante ci ay avant Korité bi la woon. ci avant Korité yéen a ngi doon déggante. waaw Moustapha nag bon xam nga des fois booy seeni téléphone c'est dafay nekk lu raar ñu yàgg ci téléphone. tey bu ñu yoree bii numéro suba ñu yor benn numéro. Mm. amaana doo xam ci ban numéro ngay mën a. Euh, fixé pour di déggante ak ñoom. mais ne serait-ce que même bu ñu déggantewul woon sax. Mm-hmm. maa ngi doon dem ci kër ga. pour di jot seen i information wala ma déggante ak paa bi. Mm-hmm. di ko laaj seen i nouvelle mm-hmm. ñu may wax ne ñoo ngi ci kii ak même bi ñu ko paa bi di wutalee moto bi yëpp après la ko paa bi expliqué. mais mooy loolu daal. tey dem na. Mm. mu nekk diis boo xamante ni tey képp kuy sénégalais dal na sa kaw. lañu moom mun ñu wax ci jëmm jooju. waaw at la amoon juste damay wax rek ni surtout xale yi nga xamante ni ñoo ma gën a féete féete ndaw mooy ñu ñu gën a am taxawaay ci seeni parent mm-hmm. waaw même bu dul dara nekk xale yi rek taxawul yow nga mën a euh, bañ a taxaw taxawaay boo xamante ni dina neex say parent mm-hmm. parce que koo xamante ni su la say parent digalee nga def su la say parent teree nga bàyyi te déjà lii nii mu doon suturloo ba ndawal gi fekk ko ci ci ci ci parent moo ko ko yombalal muy moto bi donc loolu bu amul woon benn benn affinité ak benn benn benn dégg euh, euh, nu mu tuddati waay euh, lu mu doon déglu waaw bu amul woon benn benn nu mu tuddati rapprochement rapprochement ak paa bi ak euh, dégg bu mu dégg ndigalam amaana du paa bi du du am woyofu wutali ko moto bi ba ko ba ko jox ko mu ciy liggéey mm-hmm. ak yeneen i mbir yi nga xamante ni amaana moo koy defal euh, kilifaam te moom yàlla dafa dogal dañoo teel ñàkk seen seen yaay. ñu nekk ak paa bi waaw moo tax saa su ne damay wax rek lu mu ci mënti demee na gone yi gën a jàppale seeni parents yi. Mm-hmm. ñu gën leen dégg. di topp seen i ndigal di bàyyi seeni i tere ba nga xamante ni lépp loo xamante ni amaana ñoo koy jànkoonteel rek yàlla dina leen ci mën a may euh, amaana njootu gu rafet ci lépp luñ ciy séntu. ñu gën a booy gën a euh, jàpp parent yi daal. Mm-hmm. que parent bu fi nekk wala parent bu fi nekkul na yi gën a joxaat cër parents yi. waaw ni leen gën a joxaat cër mm-hmm. di déglu seen i ndigal di bàyyi seen i tere loolu daal laay conseillé sama bopp. di ko conseillé bépp jeune boo xamante ni amaana. Mhm. mu ngi ci fii nii. léegi ban message message boobu jeune si ñoo ko moom mais autorités yi nga xamante ni tey ñoom ñoo ŋànk tey war ñoom ñoo war a ŋànk sécurité askan bi mhm. ñoo ñu ban message nga leen di. bon man ci ci benn côté man je me suis que ni situation bi malgré que ñun la daal mu metti lool. waaw mais am na loo xamante ni il faut que ça cesse dafa war a jeex ci ci dëkk bi. Mhm. mooy que rey bi ñuy rey nii. mel ni dañ ko banaliser waaw parce que man je me suis ni fii nii tant que appliqué wuñu la peine de mort mm-hmm. amaana fii nii kon képp koo xamante ni sa mbokk la ñu faat rek day mujj perte mm-hmm. parce que ñi nga xamante ni amaana ñoo naan dañuy dañ koy dañ koy dañ koy bañ waaw bu ñu fi appliqué peine de mort kenn ci ñoom mm-hmm. bu ñu jëloon sa yaay wala sa papa wala sa doom boo sukk jur ñu rey ko def ko jëfin bii nii boobaa dinañ xool ndax yow di nangu ñu appliqué peine de mort wala duñ ko appliqué daa fekk ne ñoom ñi koy bañ dafa dalu kenn ci kenn ci seen seen deret rek te bu dul dara ñun ñun duñuy ñuy ay du tubaab ak affaire yooyu noonu ñun ay nit ñu ñuul lañ te dafa am loo xamante ne dañ koo war di ko appliquer surtout ñun ay jullit waaw taal ku ne xam ne ni àtte àtte àtte jullit mooy képp koo xamante ne rey nga nit te tey ko dañ la war a rey waaw donc pourquoi ñun ñu ne on est un pays musulman boo xamante ni eh, on est à quatre-vingt-quinze pour cent de la population ay jullit ñu ne du ñu appliquer loolu mm-hmm. man je contre à ce que ñu naan dañuy dañuy bañ ñu appliquer la peine de mort il faut que autorités yi ma ciy lancer un appel mm-hmm. surtout le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar parce que dañoo am yaakaar ci ñoom waaw le premier ministre Ousmane Sonko gars yooyu yëpp dañoo am yaakaar ci ñoom mm-hmm. waaw gars yi yaakaar ni amaana li fi nekkoon dafa war a jeex tàkk changement te li fi nekkoon bokk na ci ñu bañ peine de mort donc bu ñu ndaatee li nga xamante ni mooy yaakaar gi mhm. dañu fa war a appliquer la peine de mort pour yi nga xamante ni yii nii moo fi am dans l'avenir dootuñu ko fi déggati mhm. et ces ma ces ces ces ces yi nga xam ñooy def nii mhm. il faut que ñu jël leen ku ci nekk kenn par kenn ñu mettre leen devant le peuple sénégalais waaw mettre ko en direct dans les chaînes leur famille en premier rang ñu leen di daggate wala ñu leen di wal ba ñu jeex tàkk Mm. dans ce bu ñu ko joxee comme un exemple première personne. Mm. loolu yëpp day jeex ci saa si. mais imagine toi yi bu ñu ko defee ñuy nëpp nëppal wax fii génn fii. Mm. après ñu toogaat bàyyi mu sedd ñu toogaat bàyyi mu sedd day gën a répété waat. Mm-hmm. bu ñu ci jëlee premier exemple kenn. ñu teg ko devant un devant tout le monde. di ko mettre en direct sur tous les télévisions. ñu dugal ko ci machine wal ko ba mu jeex tàkk. waaw loolu bu ñu ko appliqué léegi reykatu nit yi dinañ bàyyi li ñuy def man message boobu laay lancé mm. et que gars ñu gën cee bàyyi xel xam ne askan wi mm. dañoo am yaakaar ci ñoom jéem a jàppale askan wi mm. fii ñëpp am nañu esprit de vengeance wala affaire yooyu noonu mais duñ ko def parce que dañoo wóolu suñu justice dañoo wóolu suñuy dirigeant donc wóolu wóolute boobu ñoo am ci ñoom ak yaakaar bi ñoo am ci ñoom nañ ko dellu askan wi jàppale leen ci li nga xamante ne maanaam moo leen di metti ñu koy saafara waaw bokk na ci sama message nag mooy qu'on applique la pen de mort. et que képp koo xamante ne bañ na bañ na ñu appliquer ko. Mhm. ñu ko rayalee yaayam wala papaam wala doomam. dinañ gis ne ba xam ndax wa lu ñuy bañ na wala ñu nangu loolu mooy sama message. mu nekk message boo xamante ni Mouhamed Dimi génne na ko di grand frère ci euh, Moustapha mi nga xamante ni moom la ñu faat ci def ko ci jëfin bu ñaaw message la boo xamante ni tey ñu bëri d'accord dinañ ci d'accord ndax lan. xëy na ñàkk nañu ku leen jege ci loo xamante ni lu mënoon a ñàkk la xëy na itam ñàkk nañ koo xamante ni xam nañu ko ñu ñàkkee ko rawate na nag ci état bi ñu ko defee lu ñaaw la lu ñuy ñaawlu la bu baax a baax waaye Mouhamed lan ngay tàggatowee waaw di santaat bu bu baax di gërëm waa Allô Sénégal ci seen déplacement malgré que c'est pas évident ak euh, jamono ñu mel nii mm. mais ngeen ñëw fii pour euh, jox ñu occasion ñu mën a exprimer wu devant le peuple sénégalais ñu leen santaat bu baax di leen gërëm di nuyu bu baax seeni internautes di ñaan yàlla télé euh, chaîne bi yàlla na dem ba àgg foo ko yaakaarewul mu dem ba ngeen am seen seen seen seen euh, licence di ko mën a euh, jàllale ci àdduna wërngal képp vraiment ma leen di bu baax di leen gërëm di di di di masaw aussi la famille di leen masaw bu baax di leen jaale li nga xamante ni ñoo ko bokk encore une fois di ñaanal aji dem bi yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljanna amaana yàlla na continuer ndawam ci wetu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla lii yàlla bu mu amati kenn sénégal lii na nekk dernier crime bi nga xamante ni dina am ci fii si sénégal waaw ma koy ñaan di ko di sàkku sunu borom yàlla nañu ko yàlla defal mm-hmm. yàlla dool ci réew mi jàmm mm-hmm. defal ñu ko defal ko bépp réew jullit mm-hmm. waaw di santaat yàlla bu baax alhamdulilah jërë ngeen jëf ci ku ko xamoon ak ku ko xamul woon ñëpp bi ñu jotee information yi dañ koo méttitlu dañ koo naqarlu muy wane ne sénégalais xolu yërmande bi nekk ci moom ñëpp lenn lañuy wax que justice soit faite na yoon gaaw def liggéeyam gaaw teg loxo ñi nga xamante ne ñoom lañu ñoom la ñu yaakaar ni ñoom ñoo def mbir mi corriger leen publiquement ba sénégalais ku jàpp ni xam ni itam yoon am na fi loolu nag mooy message bi nga xamante ni du ñàkk ñu daat koy génne teg ko ci kaw taabal bi ndax suñuy internet boo seetoo boo seetloo commentaire yi lenn rek lay def lay doon paix en son paix à son waaye tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo jëf lii yàlla na leen suñu borom ñit te yoon def ci def liggéeyam ci seen kaw ca hmm. la ñuy jar rek waat famille bu baax a baax masawu sénégalais yi jaajëfal leen jaajëfal mbokki internet yi jox leen dig daje ëllëg seen yeneen émission jërë ngeen jëf